damay rendre un dama leen rendre waaye remercier leen ci turu Bassirou Diomaye Faye bu ngeen ma ne Bassirou Diomaye Faye nag mooy candidat ba ndax man bés bi président Bassirou ñëw fii man ca laa newoon Kaffrine waaye li xew Kaffrine moo xewoon fii Nioro la seule différence mooy ñi àndoon ak man Kaffrine daf ci amoon benn historien bu tudd Dame Mbodj waaye historien boobu moo manqué woon fii waaye président Bass euh, candidat Diomaye bi muy ñëw fii gars yi dañoo taxaw fële police ne du dugg fii ndigal buñ leen jox yéen jeunesse Nioro yéen a taxaw di xeex ak ñoom 23 heures ba 4 heures du matin Diomaye Bassirou Diomaye dugg fii biir Nioro daanaka heure xëdd kon loolu il faut histoire xam ko seen jàmbarte fuñ ko wees fuñ ko natt weesu na